tawféexam ci Maulana Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasoul tey ñaan Cheikh Mouhamadul Muntaha suñu borom yàggal ko fi wéral ko kattanal ko ba yim naal ci lislaam yëpp mu àggale ko ci gën gee rafet anam ginnaaw loolu tamit ni nga ko waxee ci turu inspection de l'éducation de la formation ñu ngi béral cant di ko jëme ci muhaddimatul xitma euh, maa ngi ñëw teewal IEF ànd ak délégation bi nga gis nii ñëpp Euh, muy ay gis nga inspecteur Thiam sama collègue nekk nii am na ay professeur ay directeur d'école ak ñi nga xamante ni ñu ngi liggéey ci biir inspection bi ñun ñëpp ñu ànd ngir ñëw jëmmal mbir mi ak wane mbégte muñ mbégte ci ñu woo ñu ci lu mel nii ndax nag kuñ woo jumaay Touba wara nga sawar ci wuy si waaye ñu woola tamit nga yëngu ci xam-xam ñu woola ci jataayu xam-xam woo ci weeru koor Muxaddamatul ma nag liñ def Euh, man dama jàpp ni jàngale la jàngale la ndax ñëpp xam nañ ni euh, jàkka juma néegub yàlla la te dañ ko war a dundal dundal gi mooy di ca julli waxtu juróomi waaye nag mu nekk bërëbu xam-xam ba pare muy jouer tamit rôle social bu mat sëkk kon yéen jumaa ji ngeen yor di ko doxal ñëpp xam nañ ni vingt quatre heures sur vingt quatre jumaa ji day dund nga xamante ne nekkul rek foo ñuy julli tëj ko dem waaye dañuy julli waaye ku fi ñëw tam man fee jànge sa diine man fi jàng ci àdduna waaye tamit mu bërëb boo xamante ne bërëbu social la loolu di lu am solo ñu ciy bég thème bi ngeen biñ doon déglu léegi tamit képp kuy borom xam-xam rek duggoon fi ak ku ñëwoon di jàng rek jële nga fi loo xamante ne njariñ la loo xam ni yóbbal la boo mën a dimbali ko sa dundug yépp ndax sëñ Samba mi doon waxtaan abordé na thème yu am solo ci dunduk sëriñ bi wax ci jamono bi mu nekkandee ndaw te kon ndaw ñi wax na ñoom di ndaw terewul a am détermination terewul a am yëg-yëg terewul a am pas-pas ndax booba yitte ju mat sëkk la am laxasaayu daanaka jamono bi muy wax loolu kenn toppagu ko ñu koy woo ci teraangay àdduna ndax xaaloo yarkan la waxtaane ñu woo ko mu mel ni kuñ ndaw luñ ni woon kaay ñu def la ministre wala ñu def la ministre conseiller wala ñu def la chargé de mission nga mën a am teraanga yëpp am ay passeport diplomatique fu la neex dem lu tekki lu rëy ci ci ci àdduna mu wan ginnaaw loola lépp jublu boromam kooku kon bind la bu mat sëkk boo xamante ne kuy ndaw war nga koo jël muy ab yóbbal boo xamante ne ñun jël nañ ko ngir mën ko yóbbaale lam ca teg bañ ko ne demal mu gàntal tamit dafa wax moom jubluwaayam ndax ku wan ginnaaw mbir nekk am nga loo jublu daf ne wan naa ginnaaw wunti wóor yooyu waaye nag lan laa jublu mooy xam-xam ak jëfe ko xam-xam ak diine loolu tamit di bind boo xamante ni ñun jële nañ ko fi ndax nit ki lépp lum dëgmal lu dul diine ak xam eh, day mel ni loola boo moytuwul neen lay doon ci ñun kon ñun ay yarkat lañ ay jàngalekat lañ waaye ñëw nañ jàng yellante nag li ñu fi roote ñu man ko yóbbu man ko sottiwaat ndax système éducatif moom benn la ñun ñëpp ab sénégalais la ñuy former bu ñenn jaaree ci wet gi di former kenn ñeneen jaar fële di former bu jee am na ku ci soo sooxele rek boo moytul dina yàq liggéeyub kase des moo tax jokkaloo bi am nii nga xamante ni dina ñëw tànq fii booleeg xëy na lañ yoree na ko si néew gën koo joyal loolu day gën a defar suñ liggéey bu baax a baax fii daal man jàpp naa bi ñuy door a ñëw daa fekk ñu woor eh, eh, dundal nañu ruux yi bu baax ci soññe waaye biñ demee ba dog jotit bi gaa yi duggee fii ñoom sëñ Babacar Jaxate ak ñooñu dund nañ ci seen yaram kon loolu ñu ngi ciy santaat bu baax mu xaddamaatul xidma